thank you tax a daje fii ñu ngi ci ñu koy rafet bu baax a baax a baax a baax ñu ngi koy rafetlu ndax jëmbat garab mooy dundal réew garab payam kenn mënu koo wax ndax mook doom ju baax ñoom ñoo tolloo ci ko def ndax moom dong la yonent Muhammad alayhi salaatu wasalaam wax ne garab nga mun a nga mun a jëmbat nga gaañu tiyaaba di la fekk foofu ak moom ak doom ak sarax boo xam ne dafa sax bon garab am na solo jeetaay bi vraiment kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax kontaan nañ ci dëkk bi itam kontaan nañ ci vraiment ñun ñëpp sawar nañ ci rafet lañ ko itam ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. dëkk bi ñun ñoo ko mën a porter dëkk bi buñ bëggee mu dem kanam il faut ku ci nekk dugal loxoom il faut ku nekk dugal li nga xam ne moom moom la am benn nit mënul yóbbu ñun ñoo ko mën a yóbbu parce que ñun ñoo ko moom ñun ñoo fiy dund jëmbat nag njëriñ ñi amul dayoo ki ko jëmbat ki ko fekkee ki koy arrosé ñi ñi ñi ko fekkee yëpp yool dañ ciy bokk ñu bëgg nag koo xam ne defal lañ la garab sa buntu kër nga saytu ko be liñ ci xam li nga xam ne moom lañ ci yaakaar ñu def ko ñu mun leen wax également que fépp fu ñuy samp garab am na ci biir groupe bi des jeunes yoo xam ne seen xam-xam màcc na dem ci wàllu wàllu environnement seen xam-xam màcc na dem ci wàllu oye et forêt di jaar foofu chaque quinze jours di vérifier par pour un suivi xam est-ce que liñ fa samp ñu ngi koy toppatoo li mu waree bu amee gàllankoor ñu mun ko joyanti. ñu dañu seetlu ne pauvreté bi dafa dugg biir Sénégal te séeréer mënul talal loxo ñu ne war nañ mën a trouver des schémas de petits projet pour permettre à ces familles pour ñu wax may mun may may seen famille famille yooyu ñu mën a lijjanti li nga xam ne moom lañ war a lijjanti kër gi te kenn du yegg seen problème ñu defal leen ay lopin de trente mètres carrés seen buntu kër ci trente mètres carrés yi ñu samp fi juróom-ñaari euh, kii yu meññ biñ ko defee au suivi li ñu constaté mooy que non seulement bu ñuy toog seen añ bu ñuy toog seen reer dinañ fa mën a jëlee plus de la moitié la li ñu doon jënd marché li topp également dinañ ci jaay ci koñ bi ba mën a fay seen facture courant ak seen faytu facture ndox loolu ngeneen la te bañ koy tànn aussi dañu noon dañuy ciblé kër yi nga xam ne ñoo ko gën a yeyoo noonu lañ ko defee bu wee bu loolu wéyee njaay njaay dafa am loo xam ne tradition bi dañ ko si sopp muy lan bu nit di takk jabar bés altine bu joy bu ñëwee jigéen yëpp dañuy daje dem ci benn teen boo xam ne moom fa la ñuy fóote mais jigéen xam na ne am ngeen ne dafa soxla sutura ñu amoon fa benn box boo xam ne fa lañ doon suturloo box ba yàlla def mu daanu ma ñu waxtaan suñu biir xale yeeg mag ñi góor ñeeg jigéen ñi ñu dajale nit as ah, tuut li ñu am ba mën nañ tabaxal foofu ñaari box ak foo xam ne dinañ fa mën a daje pour sol seeni yére mu am sutura loolu jot nañ ko fi def lycée bi nga xam ne aussi moom la njaajaay am ministère de l' éducation may ñu ko muy soog a ubbi lycée buy ubbi dafay ànd ak bokk gàllankoor yu bëri. ñu ne nag loolu aussi il faut ñu dugal si ñu loxo benn dem nañ foofu yóbbu fa ay table ba yu mucc ayib équipe classe terminale scientifique yi équipe salle informatique bi. bu loolu wéyee aussi classe yi nga xam ne moom la ñu tabax tabax classe xam naa ne investissement bu dis la te ñun ay fonctionnaire la yoo xam ne dañuy dajale. dañuy cotiser suñu biir xale yi di indi li am jigéen yi indi li ñu am ñu ne dañuy participer ci construction locale de classe yi jënd na ay ay tonnes yu bëri yóbbu ko ci école ba jébal leen ko pour ñu participer ci construction salle de classe yooyu. bu loolu wéyee également examen yi bi ñu ñëwee nga xam ne examinateur dañu ñëw suñuy gan gan lañu dem nañ def suñu participation pour équipe bi nga xam ne moom mooy ñëw saytu examen yi ñu mun leen def ci condition yu baax. bu loolu ci wàllu santé. xam nañ ne dëkk bi souvent dafa am ay feebar yoo xam ne ñun mënuñ ko maîtriser ñu yaakaar ne également diabète bi def ci bëri cholestérol bi aussi mu ngi commencé am ci dëkk bi tension bi aussi bëri na ci dëkk bi AVC ak lu kenn xamul moo fi moo fi am. ñu ne laata mu ngi daal suñu suñu suñu suñu mbokk dañ ci def ay jéego ñu jëli yoo xam ne ñoo xam ne seen xam-xam màcc na dem ci wàllu affaire cardiaque ak avec diabète ñu indi leen ñu defal ñu consultation publique gratuite. pare waxtaan ak waa dëkk bi biñ paree ñi nga xam ne dañ leen dañuy gis ci ñoom ay feebar ñu gunge leen yóbbu leen hôpital feyal leen ñu faj leen dugal leen seemi gunge leen ci également wutum garab yi. loolu defe naa ne 53 personnes yi nga xam ne moom lañ gisoon ñu am ay feebar fexe nañ ba ñu am loolu yëpp bu loolu wéyee également suñu yaay yi nga xam ne dañoo dellu école di jàng alxuraan parce que alxuraan mu képp kenn mënu am lu gën loolu. dañuy dem di daje daje chaque ngoon ci jàkka yi am seen i jàngalkat kooku ñëw di leen di jàngal alxuraan seen diine ñu dem saytu ni ngi jànge bi ñu demee foofu aussi seetlu lañ ne si ay basan la ñu toog te kiy jàng boo toogee si basan mën nga ñàkk a am ni nga bëgg ni nga bëgg ñu ne il faut ñu changer conditions yi nga xam ne foofu moom dañ fa nekkee ñu wutal leen ay table baax yu mucc ayib tegal leen ko foofu salle bi nga xam ne ñoom lañ doon defee aussi ñu ñu say ñu defaraat ko bi nga xam ne am na sécurité am na confort loolu aussi jot nañ ko ci def def ci dëkk bi xale yu xale yu ndaw yi parce que lii nga xam ne moom lañ sumb mu mouvement Fatick Njaay ca kanam bu ñu waxee dëgg xale yi ñoo xale dafa tol foo xam daa am xam ne bu fa tolloo dafa war a am liggéey dafa war a am loo xam ne da koy suturloo parce que waa Njaay Njaay mënuñ tàllal loxo xale bi dafa war a am loo xam ne dina ko njabootam yor ci ay ay parents yi xam ne ñoo ko yoroon ba mu màgg ba màgg te dañ seetu ne emploi bi vraiment problème ma biir Ndiaye bi problème ma biir ñu ne nag buntu boo xam ne yaakaar nañ ne mën fa jëlee emploi dañ fa fëgg ñaan fa emploi di woo également ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi rek Ndiaye ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi rek Fatick te seen seen position may leen ñu mën a ñaani plus wala ñu mën a joxe poste ñu ngi leen di woo talal leen loxo pour ñu jàppale xale yi ñu mën a am liggéey parce que xale bu ñu amee liggéey dëkk bi naat li ñuy cotiser nii ki nga xam ne amul liggéey buy ñëw téeméer lay indi wala ñaar téeméer bu amee liggéey dina indi vingt mille waa cinquante mille li ñuy def dina mën am gën am solo donc liggéey bi bu bu gën a suux eh, bëri ci xale yi impact ni nga xam ne moom la ñuy def également dina gën am solo loolu mooy mooy mbébét bi nga xam ne moo gën a am solo te li nga xam ne moom la ñuy dox tey ñu ngi ñaan nag képp koo xam ne mën nga jàppale xale yi njaanjaay yi mën nga jàppale xale yi Fatick ñu am liggéey na nañ lépp nga jàpp ci pour que liggéey bi mun a am xale yi mun a mun am liggéey mun a seen njaboot mun a yore seen parent dëkk bi naat dem jëm kanam thank you